mais quand quand Alioune euh, doyen dit dossier bo xamné mu euh, devant la justice mu ce dossier Adissar Ousmane Sonko un dossier euh, supposé de viol ce même Alutin dit di mel comme bëgg wax justice bi pour mu gëmm xam par rapport à ce dossier supposé de viol parce qu'on vous a même entendu dire que dossier Bobo, buñ ko continuer mu né indi li nga guerre civile parce que à mars 2021 dañu ma fait un ma bureau ma attention le Que contrôler affaire Qui ni état <laughs> ni opposition Nous avons dans le chaos à cause de ce dossier ma gis ko jóg ci chef religieux représentant yépp leen def li def bu mbir mi dellu mais 2021 mars 2021 mënul pare ñu xool suñu suñu ni ñu ngi basculer réew maa a basculer nga génn ci te doo ak ak ak ak ñi nga leçon la tirer ci li nga parce que kooku bu ko defoon tey du ne même aller jusqu'à terre, un dossier. supposé de viol. waxuma dossier ñu teer dossier musuma ko wax de nee fi sax yow euh, Ousmane Sonko tu as intérêt nga dem devant la justice su fekkee ne da nga bëgg nekk candidat à la présidentielle mais il faut ñu créer ay conditions yoo xam ne bon euh, dinañ am une sérénité bo xamné justice bi mën nañ ko rendre kii mën nañ ko kenn du am impression que nit ki dañ ko bëgg a ci ay élections parce qu'après l'affaire affaire il a de façon presque subreptice hein. ah vous avez un am rapport portant la plainte c'est ça que da ngay l'impression que qui dañ ko beaucoup <laughs> et lui il n'est responsable de rien. mais c'est-à-dire que l'impression Bobu. c'est que problème c'est nga problème ne article suñu article 57 elle mais article faut que nous le ko. Tu sais qu'il y a beaucoup été condamnés pendant 6 mois et qui n'ont pas été candidats. Les juges ont été prononcés. Tu Toutes les peines complémentaires peines complémentaires, euh, peut vous avez 3 ans, quand tu as fait 100 000 francs 200 000 francs 300 000 francs de demande, il faut que le juge le prononce. Il faut que le juge le prononce. Il ne peut pas le prononcer tëj nañ la 6 mois juge bi waxul ne yow dañuy invalider sa candidature pendant un un un mandat deux mandats trois mandats mais kooku kooku jurisprudence ça veut dire que ñu ngi nekk dans un truc boo xam c'est ambigu te kenn du ko régler te te te juristes yi xam nañ donc il faut que ñu am ay affaires yi loolu que je veux tax ma nañ waxtaan parce que problème éligibilité dafa ne problème boo xam problème extrêmement sérieux bu Brésil kan kan élire élire Brésil c'est pas Lula Lula n'était pas en prison il faut que nous nan lay démocratie di progresser Il lañ am nan lañ koy faje mu nek faire? Nous day pas waxtan wu yaatu ñun ñep ñu def ko problèmes peut-être que lolou motax que mars deux mars deux ko mars deux do revanche lay jël. yok yok gendarme yi affaire bu ndaw mu nek diffamation bo quand arsenal bi qui yépp ak ki nga résidence surveillée nguufaan ko gazé ko quand même. day day am une impression que son dañ est persécuté. tu as comme l'impression que Sonko violé violer ay loi mais attends man bi nga xamé ne euh, Ablaye day dal mais man dama dal ci kaw Ablaye wad Macky ñu criminalisation de l'opposition la suñ ko peut-être que Macky du candidat.

lan la and ñep diko soutenir xam nga insurrection bo c'est gisee def démocratie c'est en réalité la démocratie pratiquement sans institution c'est c'est la démocratie à l'état pur bo démé ligue avancé lo la démocratie en Europe ak en en France ay insurrection la dañ c'est la lave des foules waaw légui nga jël Burkina amuloon insurrection fu tollu tay donc nous sommes dans une situation où une institution fragile dans une dans une situation boo un contexte géopolitique où nous dans des conflits et souvent une crise démocratique mais aussi des crises sécuritaires mais loolu bu ko gisee ñu xam ko dañuy def président nous parce que bu nekk nous Burkina Faso ma nga fa ce régler Tchad la fa xew ma nga fa nekkoon donc xam enjeu on problème yi vraiment pour le Sénégal dañ koy ñaan ngir yalla, ak mu mu régler problème yi nga ay contentieux c'est sur l'éligibilité mm-hmm. régler il yi nga des au niveau de la justice justice la justice est impliquée sur le processus électoral yoy tamit su des violences indi violence yi nga xam mom lay gis dañ de ah, des ay nit xalé yi nañ ma et cetera ah di Karim rendi nañ ko ki di Khalifa Ababacar si yëngatuwul won rendi nañ ko comme ça ki bu bu jógee xale yi dañ ko naan yàgg ci yoon cest dire que logique logique bi nga xamni mo nek logique de confrontation moy logique bo xamni ne il faut que président de la république génn ci logique boobu il faut que Sonko génn ci logique boobu lolou moo tax ma wax la sama xalat ci insurrection tout à fait euh, euh, doyen bu ñu waree rek retracé wat euh, film bi bal noonu jël Ousmane Sonko di koy forcer pour mu dem dem devant li nga xam ne moo juge bi ba finalement Ousmane Sonko gis nga ni ñu ko malmené ba mu retrouvé wu foofu noonu à l'hôpital ban jàngat nga ciy def est-ce que da nga jàpp ne dañoo violer li loi yi droit yi kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko wala suñu police nationale bi sax daf say demee ak excès de zèle bon c'est vrai que euh, après mars gis Ousmane Sonko qui mais biñ ko jëkkee wo dem na be egg euh, li nga impression bi nga xamné mom lañu wara bayyi a euh, ah, procès bu Ousmane Sonko pas armé <laughs> il mais il a toute une jeunesse derrière lui. il a les jeunes derrière lui Je suis Je suis lay wax affaire depuis le début depuis le mois de mars. mois de mars bi commencé dal Je dara Je suis dem Je suis alerter. mois de mars suis jëkk alerter attention c'est une affaire d'état suis gis nga bi ñu alerte li ñuy wax amul lu ñu déggul te alerte mooy alerte alerte euh, xam nga pompier buy do buy daw wala ambulance buy daw ni muy defee pipon pipon bokkul ak auto normal loolu mooy alerte alerte nag foog nit ñi dégg ko man dégg nañ ma On vous, on qualifie même de rentier détention, euh, des tensions, doyen. ah kooku xam naa vocabulaire bi fu mu jógee xam naa kan moo ko construire xam naa ñan la xam naa nan la ñuy travailler mais ça me touche pas ça me touche guère parce que bu ma génnee ci bitim réew di wax ak nit ñi ak seen crise je sors des prisonniers su may wax dañ may déglu maa ngi nekk ci réew boo xam ni moo fi ëpp crise ci Afrique de l'Ouest damay wax ak autorité yi dañ may déglu ba renouvellement donc man